jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na ma koo jukki jàppale ne benn néew boo xamante ni nag moom la ñu génnee ca dex bu euh, Marsasum mu doon ab xale boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook euh, ñaar fukki at moom moomee nag réeroon ay mbokkam boobu léegi euh, toll na ci ay bés alxames ba tey mu mel itam néewam génnee nañu ko foofee daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo moom général Birame Diop Diop euh, xam ngeen ne moom mooy euh, ministre wu force euh, armée suñu ay ndaw itam dem nañu fa nga xam ne itam fa la dëkk di fa def lu baax diwaan bu Thiès yenn ci ay seede itam yoo xamante ni daal nañ koy taataan ci yenn ci askan wa nga xam ne nag ñoo nga yeewoo diwaan bu Thiès ak la la ko waral itam bokk na ci gouvernement bu yees wi nga xam ne daal nañ koy teg niki démb daañu dikk ak yéen yenn ci ay dossiers yoo xamante ni dañ leen koy jiklal saa su ne daañu waxtaanee li nga xam ne moom moo di ñuy defar daal ca diwaan bu Medina rue 11 suñu ay ndaw ah, dem nañ fa ngir waxtaan ak ñoom ci la jamono ñuy waajal li nga xam ne nag ah, moom moo di ah, korité yi yan jafe-jafe la ñu làmbool ngir rek daal di amal lu ni mel lu soxal itam ñàkkum financement ak itam ñàkk gis client yi doon na loo xamante ni dénk nañu ko suñu ay ndaw bu ñu jugee ci dàll yi daañ waxtaanee li nga xam ne itam moom moo di yëre yi ku ne korité wax itam li nga xam ne moom moo di sañse yi jàpp ne lu soxal itam campagne électorale bi daal na indi aw tagga témbe ci li nga xam ne moom moo di seen ak liggéey waaye itam bëri na euh, ci tailleur yoo xamante ni nag ci la jamono modèle yi ñuy ñaw mu di euh, euh, costume africain yi ndax bokk na ci Ousmane Sonko ak itam Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye wi nga xam ne nag sol nañu ko ba tax itam ndaw yi bëgg ko lool ci la jotaayu xibaar daañu waxtaanee li nga xam ne moom moo di njàngum alxuraan tax na itam daal nañuy dalal yenn ci ñu ay imam yoo xamante ni daañu indi ay leeral ci li nga xam ne moom moo di njàngum alxuraan ak itam anam wi nga xam ne noonee lañu koy jàngale bu ñu xoolee indépendance ba suñu jon yàllaay tey moom imam Moustapha Ngom ah, di imam ratib ah, bu ah, Mariste ak itam ki nga xam ne moom moo di imam Mokhtar Ndiaye moom mooy chargé wu communication bu association nationale des imams et oulémas du du Sénégal ñoom lañ fa yéene bokkal li nga xam ne moom moo di jotaay yi mbokk yi tënk yaa ngook bu ngeen taaxee la tuuti ma dikk ñu faram fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu door ko nanga xam ne noonee la ñu ko junje woon benn euh, ndaw loo xamante ni mi ngi am ci lu tollu ñaar fukki at moom la ñu gis euh, néewam ca dex bu euh, marsaasu moom moomee nag réeroon ay mbokkam alxames ba tey ci mujj gi lañ ko gis nag ca dex boobee ñu waxoon na rek fa demoon ngir rek daal di sangu ji ndaw loole nag bàyyeeko fu ñu naan Frankunda nekk ca commune bu Beme moom. moom nag ñu ngi yóbbu ak euh, néewam ci hôpital régional euh, PS2 euh, bu Sédhiou bu ñu sukkandikoo ci suñu correspondant wi nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca diwaan bu Kolda ak la ko wër di Bakary Konté xibaar bu ni mel daañu ci dikkaat ak yéen nu mu gën a yaatoo. aywa mbokk yi ñu woyal euh, xibaar yi xam ngeen ne ni ki démb la ñu rek euh, daal di taxawal gouvernement bu yees woo xamante ni itam namoon nañoo amal liggéey euh, fii ci réew bu Sénégal ginaaw bi ñu jugee ci élection présidentielle yi nga xam ne nag biñ ca génnee moom président Bassirou Diomaye fay moom moo fas yéene jiite li nga xam ne moom moo di réew mi kenn cig ñu bokk ci ñi ñu tabb mu di général biram Diop moom xam ngeen ne moom mooy ministre des forces armées Thiès gi nga xam ne fa fekk baax te itam na ci ay taax yoo xamante ni di na koy tabax foofee tax na askan wa fa yeewoo itam daal di indi ay kàddu yu seede eh, ci kile nga xam ne moom la ñu dénk wàllu eh, forces armées Cheikh Anta Diop ak Seylatir la ñuy àndal ci bile reportage ñu seetaan. mbégte bu rëy la askan wi yeewoo. ginnaaw nee nañu bi ñu gisee ñu tabb. ñeenti ministre yoo xamante ni fii la ñu dëkk ci cees kii di Racine Kane nee na moom baykat la dawalkatu Jakarta la waaye ci gouvernement bu yees bii de am na lu bëri li ñuy xaar ci ñoom. Thiès ñeenti ministre yi dëgg yàlla macha allah daal. waaw ah, man na cultivateur la. wàllum mbay mi nag ñu ngi ci xaar njiitu réew mi engrais bi ak semence bu cher bi. ak importation lujum tamit ñu ngi koy ñaan loolu na ko nañ ko dakkal. sëfooru Jakarta boo gis am na métier. nan recensé bu xale yëpp laaj leen ku ci nekk lan mooy sa métier ku ci nekk ñu jàppale la sa métier nga dellu sa toog mais dawal Jakarta du métier dafa métti ñi fi newoon liggéey nañ nag waaye bëgg nañ bii tamit bu dikkee liggéey lu ëpp la fi ñi fi newoon lan fi liggéeyoon ku jëriñ waa koñ bi la wax dëgg yàlla dañuy ñaan euh, kilifa bu dekkee ci koñ ci gox ba nga dëkk nga amal waa gox bi njariñ li ma gën a neex ci moom mooy xam ko ci mbiri politique kon dañuy gën a am yaakaar ci moom ñu dem ci quartier Kawsara fii la général Birame Diop dëkk askan wi yeewoo fii de nee nañu ministère des forces armées bii ñu ko jox lu moo xam la waaye li mu nekk ci koñ bi de ñëpp a ko rafetlu. maa ngi tudd Bouba la sama jëkkër la ndax mook sama jëkkër a bokk benn baay biram jóg ku baax la macha allah mu ngi def te boolewul dara ak i wax Kawsara moom def na fi lépp maanaam Birame loxoom a ngi ci lépp mi ngi ci poste de santé bi mi ngi ci jàkka yi bibliothèque ambulance yi tali bi moo ko defar. bu weeru dee lu ne lay indi ci koñ bi di ko séddale. bu dee ginaar gu dee lépp lay jox nit ñi ca yàlla rek a tax. waa cees nee nañu ñeenti ministre yi ñu leen jox de lu ñu mérito la ndaxte dañoo jàppale bu baax coalition Diomaye président nga ñaay lu am doole lañu teg ci loxoom. aywa Cheikh Anta ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi ñu wëyal eh, xibaar yi waxtaanee li nga xam ne itam moom moo di wàllug caada tey jii de taxaw ci histoire ki nga xam ne moom moo di eh, Daawda Mbuub doon koo xamante ni itam eh, ku xarañ la ci li nga xam ne nag moom lay def. ñu ràññeekoo ci li nga xam ne moom moo di euh, chantier euh, naval yi mu yëngu ci wàllu euh, soudeur métallique waaye itam lu soxal leen ci ay kàddu yoo xamante ni nag mi ngi koy yëkkati jaarale ko ci musique bi muy def mu di mbirum alquranul karim moom Daouda boole lu bari ci loo xamante ni lu mu ci laal rek nga jàpp ne foofee la gën a mënee jëmm joojee ngeen di gis suñu ay ndaw siq nañu ak moom waxtaan Ibou Diouf ak Amadou Ba ñoo amal lu ni mel ñu seetaan. ko fekkee ci biir ndox mi mu ngi yëngu ci wàllu soudage chaudronnerie yi ci lépp loo xamante ne ci wàllu weñ la jublu ci biti tamit menuisier métallique la waaye mën na am nga fekk ko ci yeneen tànt muy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag nee na dañ ko ci nampatal mu doon lu ma bëgg tamit. waaw ginnaaw soudeur bi nag tàgg yonent bi mooy suñu liggéey. waaw daanaka bu ñu liggéeyul mbaa bu ñu liggéeyee ba wàcc amuñu beneen métier bu dul dem taggi Seydina Muhammad alay salaatu wasalaam ndax yonent bi mooy suñu royukaay te yonent bi sëgam moo gën ñëpp da daan sax marchand ambulant da daan liggéeyal ay nit ñu koy fay te moo gënoon ñëpp kon ñun tagg yonent bi donte dinañu fay yonent bi ñu defal lépp teewul nag ñun sax sax suñu xëy ñu sol suñu tënni nag dem dugg dëkk bi liggéeyi bu ñu wàccee ñu ci dolli am ko ma ni leen man damaa judd rek tagg yonent bi ndax sama maam moo doon tagg yonent bi daanaka mun naa ne xaalis tagg yonent bi ma ngéntee sama baay di tagg yonent bi sama yaay di tagg yonent bi. ay géeru géer ñi ku la masa way kontaan naa. mënees nañu wax Daouda Mboup mi le ñaari métier la am di tagg. ak ki sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit mokkal métier ba tey may na ko ko ci sutur la. boo nekkee ci mbir yi rek euh, ma am sam mbenn mag buy tudd Serigne Bamba sekk ma aw ko émission tabala émission ba neex loolu ma aw Cissé jóge biir rési bi ci rési bi la jóge fi mu nekkoon ñëw di laajte kii di aw kan la ndax voix bi ñuy jox ñun dafa neex ci lañ ma découvrir rek yóbbu ma festival Salam. moom nag dafa jàpp ne lii lu mënul ñàkk la. ndaxte li nga xamante ne mooy nekk ci tànt yi wala sax ci yenn festival yi di ci yëkkati yenn kàddu yi jëmal diine islaam lu am solo la waaye tamit am taxawaay ci loo xamante ne dina amal njëriñ sa réew lu gën la itam liggéey la boo xam ne nii moo tee àdduna weñ dafa nekk loo xam ne àdduna liy dox lépp weñ a koy doxal macha allah parfois maa ngi fii parfois maa ngi port parfois maa ngi pooru Ndayane ñun ñoo liggéey euh, port bi ci bi euh, pont bi nekk ci biir géej gi. daw Mboup di tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa salaam di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu soudage ak itam lépp loo xamante ne chaudronnerie la laal menuiserie métallique mu boole ñaar yooyu di ci béy waaram saa su nekk di xamal gone ne nit ku nekk war nga mën a yëngu ci anam yu bari ci loo xamante ne lu ci nekk. dafay jëmal sa réew wala sa diine ca kanam ayru naasi yaay sama géer ay rasulullah si yaay sama géer ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaatimil uh, nabi ina wa munal mustulina moom Seydina Muhammad sangu sang yi uh, ci loole itam la ñuy des waxtaanee li nga xam ne moom moo di uh, njàngaleem alquranul karim ci la jamono itam daañu waxtaanee indépendance ba suñu jon yàllaay tey maa ngi leen ko doon wax ci jotaayu xibaar wii de daañu dalal ñaari imaam yoo xamante ni ku ci nekk itam ñu xàmmee ko ci li nga xam ne moom moo di alquranul karim moom imam Moustapha Ngom di imam ratib Mariste 1 ak itam ki nga xam ne ah, moom moo di ah, imam Mokhtar Ndiaye chargé de communication ah, bu association nationale des imams et oulémas du Sénégal ñoom lañ fa séenee bokkal li nga xam ne moom moo di jotaay wi yaa imam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di rafetlu jotaay bi di nuy imam Alhaji Mokhtar Ndiaye. Mm-hmm. di rafetlu invitation bi incha allah di déglu question yi ñu tontu ci incha allah. Mhm. yaay maam maa lay euh, siyaar yow itam di la bàyyi nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, teewlu. Euh, la fay di wax wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di mhm. yi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan ci réew mi ak ci bitim réew. Mhm. tey jii ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag moom moo di alxuraanul karim xam ngeen ne lu ni mel itam bokk na ci lu ñu ràññee ràññee lool ci showru Ramadan euh, mu ne li nga xam ne nag moom moo di weeru koor rawatina guddi gi nga xam ne ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moom moo di guddi laylatul xadr ci guddi googe la alquranul karim daal di euh, wàcc euh, jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di julliku yàlla yi bésub tey mu doon lu am solo ci li nga xam ne moom moo di jullit yi yaay maam waaw muy bis bu am solo ndax alxuraan comme ni nga ko waxee rek ci weeru koor la wàcc mhm. waaye plus précisément ci guddi gi nga xam ne mooy guddi laylatul qadr mhm. moo tax suñu borom def ina anzalnaahu fii laylatul qadr kon ci weer wi ci la ci guddi gi ci la wàcc muy guddi gu màgg nag mhm. guddi gu am solo guddi goo xam ni Euh, lislaam dafa sant jullit ñëpp ñu màggal ko mhm. ñu màggal ko ndax yiw yi ci nekk ak ngëneel li nga xam ne mi ngi ne ci guddi gi mhm. bu demee ba yàlla ni laylatul qadr xayrun min alfi mhm. mu ni guddi gii moo gën tey jaamu yàlla goo doon def ci junney weer yoo xam du laylatul qadr kon loolu am na solo lool mm-hmm. kon loolu ci introduction daal nu xam ne tey guddi gu màgg la guddi mm-hmm. goo xam ne la jullit bu nekk war nga góorgóorlu ba yiw yi ci nekk mm-hmm. ak ngëneel yi bu mu la faat waaw ndax li mu ko waxee rek jaamu yàlla joo def ci guddi gee tey ëpp eh, ëpp na doole jaamu yàlla joo def tey ci junney weer yoo xam du laylatul qadr yaa imaam lu ñu wax shahrul ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinat min huda wal furqaan lu ñu mel boot di addu ci lu soxal njàngalem alquran bu ñuy xool Euh, fa ñu daan nañ ko daan amalee ak tey lan nga ciy wax waaw liñ ci wax mooy alquranul karim moom la yàlla màggal mooy kalaamullah mooy wax ak sunu borom tabaraka wa taala mm-hmm. alquran dafa rëy dafa dafa màgg dafa tedd donc mm-hmm. leer la yàlla wax na ci alquranul karim ya ayyuhan nas mm-hmm. qad jaakum burhan min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubinan alquran yéen nit ñi indi naa leen alquran mu nekk maanaam alxuraan ci ngeen di tegtaloo. moo mhm. leen di jox ay preuve di leen wan di leen di leen lumière bi ngeen di neetoo seen wàllu àdduna mhm. ak fi lii leen yàlla dikk ëllëg al yawmal qiyaam lii lépp si alxuraan la ko jaarale. Mhm. alxuraan nag bi mu commencé bi nga xam ne l'indépendance ba léegi. ñoo koy jàng. Euh, di ko jàngale. Euh, léegi nag avancement mi ngi am. Mm. ay yokkute mi ngi am. Mm. Euh, ñoo ngi moderniser daara yi. wàllu modernisation waaw daara yi. ci jàngale bi d'abord alxuraan bi. Mm. ndax euh, jamono moo kay laaj. waaye ni nga xamee noonu la mag ñi sose woon alxuraan jàngale bi alxuraan ci Sénégal ba léegi boo demee ci këru mag ñi këru daar yu mag yi ba léegi loola ñoo nga fa. moo tax alxuraan bi mooy moo tax loolu ñoo ñooy gis lay njàngale bi alxuraan fii ci Sénégal. mooy kër yu mag yi daara yu mag yi demee Pire. dangay ngay dégg pire daara daara gu mag ja góor gi xaali Amar Fall mm-hmm. nga xamee ni ci mag ñi la bokkoon daaray kokki kazalika mm-hmm. nga dem Tiwaawan Mawlana Seydi Hadji Malick daaraam ja mm-hmm. nga dem Kaolack waaye nga dem Xelkom nga euh, dem Touba daaray Sëñ Touba ja ak ñoom fa daan yër waaye nga dem Ndar daara ya tabaarakalla nga dem Paal daara yi ma am laa jarawaan ja ak ñam ko seqaloon nga ñëw fii ci Dakar ñëpp nga xam ne daara yooyu ñoo taawu Sénégal jàngaleem alxuraan moom mag ñi nga xam ne moom lañu ñu woon ci réew mi jàngale moomu tey moom la ndaw ñi tey def ko seen cëslaay mm-hmm. mu continuer ba fi ñu toll yaay maam la ko dooree ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw itam ba ñu ko waxee iqra ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñu baax ñi fii ci réew bu Sénégal itam wëyal ci yoon woowee jël taalibe yi di leen jàngal xirtal leen nampatal leen ci li nga xam ne ah, moom moo di alxuraanul karim lu ni mel itam doon lu am solo am doon lu am solo ndax sunu mag ñi dañu déggoon diine macha allah mm. dañu déggoon diine xam ne itam alxuraan tamit eh, ni ko waxee rek mooy sunu livre de référence ñu jullit ñi Mm-hmm. mooy suñu livre d'orientation tamit mm-hmm. parce que bépp diine boo xam ne rek dañ lay jox téere boo xam ni moom si ngay sukkandiku mm-hmm. te ñun suñu sukkandikuwaay mooy alxuraanul karim moo tax suñu mag ñi démb euh, teel a comprendre loolu euh, samp ki Sénégal ni ko imam waxee léegi foyer euh, coranique yi ci domaine yu bëri ndar Pire Kokki fépp xale yi di jàng fa foofu la ñu commencé ñun Sénégal mooy enseignement coranique traditionnel boo demee ci daara yi bu njëkk nit ko daan jàngee euh, dara soppeeku fa ba tey xale yi toog te alluwa mm-hmm. yi di jàng alluwa di binde daa mm-hmm. xale yi di jàng di jàng di mokkal donc te mm-hmm. loolu ñu bëri sunu mag ñu bëri ci loolu la jaar boo demee tey ci euh, foyer religieux yi tey lu mel ne kokki ndar biir euh, xel koom fu ne ci mm. réew mi mm. daana ko euh, euh, façon boobu lañ ko doon jànge bu njëkk mm. traditionnel xam ne nit ñi dañ daan toog taalibe yi dañuy toog boobu sax électricité amul si ëpp daana ko matt lan daan taal matt lan xale yi jàng ci matt bi quatre heures du matin teel a jàng tari bu nu tari ba noppi foofu seen àlluwa raxas àlluwa yi bind ak daar daa boobu mooy mooy enseignement traditionnel boobu Sénégal xam ci la ñu nekkoon presque ba daanako jamono yi ñëw ñu commencé nag di moderniser mbir mi. d'accord di ko moderniser ci mm. euh, fexe léegi nga gis internat yi commencé. am d'accord wàllu mm. modernisation day mm. tax euh, ñu wax ci inspection des daara. ba ci sax li nga xam ne moom moo di euh, direction des daara lépp tënku ci li nga xam ne moom moo di modernisation bi ñu ci nemmeeku. waaw loo gis rek ni ko Imaam waxee sànq rek modernisation daf ci baax. parce que tey jii nan daan jàngee démb tey contexte bi tey mayeetu ko. moo tax état du Sénégal bi mu ci dégg dugalee loxoom ci wàllu modernisation tey wax dëgg yàlla ñu jéem fexe tey conditions yi nu mm. soppi ko mm. fexe tey metre xale yi taalibe yi ci ay conditions yoo xam ne yu yu baax lay doon mm. condition yoo xam ne daf leen tax tey vraiment njàng mi gën a ñoŋ loolu bokk na ci mooy gis nga état Sénégal def na ci jéego yu am solo ba créé woon fi li nga inspection des daara tey defaat na ci beneen jéego nag jógee ci inspection sax ba léegi créé direction direction boobu nag tey ñëw mën a gën a intégré tey ñu dugal euh, rattaché ko ci ministère de l' éducation nationale ba mën a fexe inte mi def mise en œuvre bi li nga xam ne moom ranu nasoon pour tey mën ko intégrer ci programme bi tey mm. mais naam solo naam ay euh, yoo xamante ni gouvernement euh, bu euh, Siré Dia boobu ak léegi mi ngi koy def yaay maam mais bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale wàllu alxuraanul karim saa su ne dañuy wax ne mbir yi des na ndax am na fu mu sooxee waaw njàngale bi alxuraan mi gouvernement bi def na ci taxawaay yu mat yu am solo. Euh, fi mu ko fekkoon ak fi mu ko indi. am na différence. bu gën a kawe boo xamee ni tey euh, état bi fi nekkoon gouvernement bi fi nekkoon liggéey nañ ci liggéey bu am solo. liggéey nañ ci liggéey bu rëy ak sëriñu daara yi ak association des euh, coraniques yi. oustaz yeeg sëriñ daara yi yëpp. ñu liggéey si liggéey boo xamee nii am na solo yaatu na. nga xamee ni modernisation bi nu wax ci daara njàngalu alxuraan bi. fii ñu toll nii tey. maanaam niñ ko niñ ko niñ ko moderniser dafa gën a dëgëral li fi mag ñi bàyyi woon maanaam nekkul ni njàngale mi fi mag ñi doon jàngale dañ ko fi jële waaye loolu mooy dëgërlaay bi mooy cëslaay bi ci la ñu sukkandiku pour gën a améliorer pour gën a defaraat pour mu gën a méngoog jamono waaye ba tey la fi mag ñi defoon ba tey mu ngi fi des mm. ñoo ngi ciy góorgóorlu sëriñ daara yi nag ñoo ngi def seen kem kàttan bu mag a mag boo mm. demee ci daara yu mag yi nga demal Touba demal Ceneba demal Kaolack demal Tiwaawan mm. demal kaw kokki mm. demal daar yu mag yooyu yëpp tey ñoo ngay jàngal alxuraanu karim ñoo xamee ni ña fay jàng ki jàngale kenn fayu leen d'accord xale yaa ngi dund di lekk di naan loolu nag euh, mi ngi am boo tax léegi nag am na daar yeneen daara yi nga xamee nag afam ay internat ñooñu dañ leen di fay. Mm. pour ñu man yor xale bi. internat internat yi. Ah, d'habitude xale dañ fay faral. xale dañ fay faral am na ci ñoo xamante fa la ñuy nekk. waaw eh, di fa jàngee. fa la ñuy nekk di fa jàngi. Mm-hmm. mais boo leen fa fekkee eh, ci interne biir internat bi dafay mel na seen kër la ñu nekk. Mm-hmm. maanaam xale bi dafay set. Mm-hmm. environnement bi muy jàngee dafay set daara ji dafay set. li muy dundee dafay baax. en même temps njàngale mi dafay rafet dafay sell. boolekaag nag di leen yar di leen éduquer. Mm-hmm. def ci ñoom jukko yoo xam ne nii jukko yu baax la ngir ëllëg. réew mi gën a tabaxu société bi gën a baax. te loolu ci daara alxuraan rek. ci lañ mën a amee. am na ñoo xamante nii euh, demuñu euh, alter euh, internat maanaam ñu ngi def li nga xam ne moom moo di jàngaleem alxuraan à domicile. ay maître coranique yoo xamante ne dañ leen fekk seen ay kër. waaw loolu mi ngi am parce que alxuraan moom képp koy julli rek. Hmm. farata la ci yow. nga def ci seen sa kéem kattan. faqra'u ma tayassara min alxuraan la yàlla wax si alxuraanu karim na ngeen jàng ci alxuraan kéem. lu mu jàppandal ci yéen moo tax nga gis euh, ci koñ bi da ngay gis ustaas bu ubbi daara. Mm-hmm. am parents yoo xam ne daañu mën yóbbu seen doom ca daara ja am na ñoo mm-hmm. xamee ni li ñu bëgg a mooy. wut benn ustaas bu leen di fekk si seen doom ci kër gi pour jàngal leen ko alxuraan mhm. am na ñoo xam ne dañuy dem ca koñ ba comme jour weekend yi dem ca benn école bu ne foofu maanaam ñi nga xam ne ay mag lañu ay kilifa lañu ñu jox leen mhm. heure yoo xam ne ci biir weekend bi mhm. dañuy ñëw pour ñu jàngal leen alxuraan bu baax a baax yaa yaa imaam inna uh, nahnu nazalna qur'ana waaw yàlla moo ko wax ci alxuraan inna nahnu nazalna qur'an wa inna lahu la xaafizuun yàlla dafa ne alxuraan dafa di téere boo xam ni xam nga tey fii loo fi jàng mu soppeeku dëgg la mu jëkk saa xew wi mm-hmm. loo mën a jàng dul alxuraan rek day xëy suba xew wi mm-hmm. alxuraan nag alxuraan rek ngay jàng waaw moom day gën a ndax yàlla moom moo ko moo ko aaral boppam mm-hmm. mu ni ñun noo ko wàcce mais noo koy aaral sunu bopp noo koy wattul suñu bopp yàlla loolu la wax mu ni ñun noo ko wàcce alxuraan bi waaw waaye tamit ñun ko wàccee itam noonu lañ koy aare wattul ko suñu bopp ba du mos a xewi du mos a sàppi kenn mënu ci kenn mënu ci dugal lenn lu ci bokkul mënoo ko ci dugal mënoo ci génne itam dara donc yàllaa ko ñoŋeel ñoŋal boppam ba tax na comme li imam wax rek njàngum euh, alquran ci Sénégal xam nga bu njëkk euh, nin daan dajalee taalibe yi di leen jàngal te sëñ bi amul woon moyen wax dëgg yàlla di subvenir si besoin yi yëpp mën a fexe toppatoo xale yi loolu moo waxoon sax bu njëkk nga daan gis si daara traditionnel yi yalwaan daan am te yalwaan googu sax dafa différent ak yalwaan gi tey parce que boobu c'était juste yar la woon benn forme d'éducation bu ñu doon def la. pour muy muy mooy nga wàccee sa bopp pour fexe inculquer xale bi ay valeurs yoo xam ni. dootul rëy. waaw dootul rëy fu mu mën a nekk dina fa mën évoluer mm. dina fa mën a parce que xam nga rëy moom mënul mënul dem ak jullit déedéet foog nga nekk nit ku wàccee sa bopp am humilité wàccee sa bopp mm. yalwaan googu nag xam ne boo daan jàng ba benn heure nu jox la pot nga dem dugg ci ñaari kër ñetti kër ñeent yooyu yëpp pour toj orgueil bi nga xam ne mooy tax imaan bi imaan bi gën a des ci yow mën a des ci yow nga modeste wàcce sa bopp mm. loolu moo taxoon na ko doon def mais c'est différent nag tamit forme bi ñu koy defee mm. tey dem na nag ba jamono dox nag nga mm. gis tey wax dëgg yàlla njàng mi évolué dem ba yenn sëriñu daara itam xëy na ñëw si capital yi mënatuñu continuer xale yi eh, ci wàllu dund ci wàllu lépp loolu demoon ba indi mendicité bi. Hmm. mendicité bi ma mën ko analyser tam ci façon yu bëri parce que tey daf ci am ñoo xam ne aussi dañuy mbubboo sëriñu daara mais bokkuñu ci. tey boo gisee am na fii à Dakar bu ñu defee ay enquête au niveau si mendicité bi dëgg dëgg dëgg am na ñoo xam ne dañ doon jël ay xale indi leen jëlee leen ci région frontalière yi Dakar. uniquement pour exploiter leen nekk nag sous le manteau de maître coranique fekk en réalité duñu ay maître coranique loolu yëpp découvrir nañ ko. daan bénéficier wu si xale yi xale yi leen exploité bu ñu xëyee suba xale yi suba ba ngoon ci mbedd mi la ñuy nekk di yalwaan. Mm-hmm. donc du ñu am benn temps d' apprentissage boo xam daan ko toog jagleel nañ leen ko. Mm-hmm. Euh, même ki leen yor sax kooku dafa tuddee dafa tuddee woo maître coranique mais en réalité sax jàngul. jàngul alxuraan donc da leen jël juste pour mbubboo mbubbu sëriñu daara di leen exploiter. donc loolu day day day firndeel ne lu soxal wàllug euh, xale yi di toltolaan ci mbedd mi dañ cee war a war mën a xeex. bu baax a baax effectivement loolu moo taxoon sax ba état Sénégal teg politique boobu retrait des enfants de la. mais n'empêche xale yaa ci mbedd mi. def na ci effort nag yu am solo mais ba tey nag bis biir mi moom xam nga ni du neex saafara. Mm. te yalwaan gi sax léeg moom nit ñi opinion bi dañ ko jagleel rek ni daara te hmm. fekk ni façon yi yalwaan bare na sax am ñoo xam ne du ci daara sax hmm. am na ñoo xam ne tey dañuy jóge tey ci pays frontalier yi ñëw di yalwaan Sénégal pour pour pour yalwaan temps yee passé gis nga état Sénégal am na benn vol bu mu affrété woon yëpp si ay ay ay ay yalwaankat yëpp delloo leen fu nu jógee mm. pour wane ni miir mi rek nekkul ci daara yi rek mm. xëy na dañ koy faree di ko collé ci daara ndax bu buñ nee mendicité rek nu ni daara ji non mais mm. léegi nag changé na pour wane ni kon di loolu tey bokk na ci ndax état du Sénégal tey passé wu ci moderniser les les daara ba tax na tey moo gis internat yi am parce que boo xoolee internat yi am tey euh, parent bi da ngay dem yóbbu sa doom di fay par mois. parce que mm. ni ngay fayee école publique. école école privée. Mm. di fay. Mm. pour sa doom nekk dans de très bonnes conditions jàng njàng mu baax. mais tamit boo bëggee sa doom tey fi mu toll nii eh, jàng alxuraan jàng bu set. bu wér te du yalwaan nekk ci conditions yu baax mais il faut nga yóbbu ko tam ci internat. d'accord tey di fay. d'accord eh, pour xale bi nekk ci condition yu baax. Imam Moustapha lu mooy li nga xam ne moom moo di yelwaan bi xale yi di yelwaan ci mbedd yi am na yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi ci biir. Mm-hmm. waaw yalwaan bi moom euh, comme ni ko imaam Xaji Moxtaar waxee. Euh, dafa am ñu ci rax. Euh, su ko yalwaan bi li ko sosoon bu jëkk ak ni mu demee léegi dafa bokkul. bu jëkk yalwaan ci daara mooy comme li imaam wax rek wàcc fexe ba dindi rëy ci taalibe bi. def ci moom jukko wàccee ci wàccee sa bopp. Mm. beneen bi ci des mooy li ko daan waral. mooy sëriñ biy jàngale daara. su bayee ba nawet bi jeex dafay dem norwaane dëkk boo xam ne lu mel dëkku teeru la wala ñu fel na mel na waalo fu ñuy bayee ceeb affaire yooyu. su demee norwaane foofu. bu xale yi xëyee jàng huit heures maanaam huit dañuy dem yalwaani. wala ñu nekk ndar yalwaani sunu yalwaani ba neuf heures nag. dañuy ñibbisi dajale suukar si dajale ceeb bi. Mhm. continuer jàng kooku def ñu ko woon métier. Mhm. maanaam nekk woon loo xam ne moom la sëriñ bi daan boo ko defee nag ceeb yooyu la ñu daan dajale. Mhm. waa koñ bi. bu nu toggee dañuy indi. Euh, jox sëriñ bi. ak waa daara ji. taalibe yi di lekk. léegi nag ceeb boobu la sëriñ bi dajale su demee bañ nawet ubbiwaat buy ñibbi yóbbaale ko bu demee mu commencé ko début nawetam. avant que mbay mi ñor mu am lu mu suturloo moog. taalibe yi. léegi nag da nga ciy gis ñoo xam ne dañ ciy commerce. beneen bi ci des it mooy da ngay gis koo xamee ni wax dëggante yàlla am na am na yu ci rax. am na koo xamee tey. mi ngi yor na daara di jàngale waaye dañ ko war formation. ba mu xam lu ñuy jàngi alxuraan ba noppi. maanaam pédagogie bi pédagogie bi dafay des. c'est important dafay am na. Mm. li ba wax ni xam naa ci dara. dëgg la am na ñoo xam ne ñor nañu daara di jàngale. Mm. waaye nag dañu war defaraat seen njànginum alxuraan. Mm. ba noppi. ñu soogay wut ñu soogay toog di jàngale. Mm. parce que alxuraan dafa am noo ko war jàngale. Mm. parce que alxuraan dafa boo ci nekkee te xam ko te gëm sa bopp. Mm. yàlla dana la suturaal. ndax kuy kuy jàngal alxuraan dafa am comportement boo war yore. dafa am noo war nele ndax jox sa bopp sa bopp sa borom en même temps nga nekk ni war nga war nekk nit ko sell. nit ku yiw nit ko sell. waaye nit ku doyloo yàlla. ndax li ngay jàngale dafa amul lu ko gën a riche ci àdduna. sallallahu alayhi wa sallam wax ni. ci xadis abi abi saïd al qudri mu ni man chaqalahu al quranu an dicri yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ci xadis ba ni man chaqalahu al quranu wa dicri aataytuhu afdala ma utiya saailin ki nga xamee ni occupation mi yëpp da ko jox alquran jàng alquran ba maîtriser alquran moom sax léeg-léeg sax du toog sax di ñaan yàlla waaye jël na léppam tekk alquranu karim yàlla nee na kooku dinaa ko jox lu gën ñi may tàllal loxo liñ may laaj danaa jox waa jooju nga xamee ni tawam yëpp def na ko ci alxuraanul karim yàlla nee na dinaa koy bett ak samay xéewal dinaa ko bett ak samay teraanga yoral boppam da maanaam waaw mm-hmm. dinaa ko bettee samay xéewal dinaa ko bett ak samay moo tax boo demee ci daara mag ñi mm-hmm. bu leen fa bu maanaam da daalibe fi jàng kenn fayul mm-hmm. waaye boo demee dara du fa jeex parce que eh, eh, ñi nga xam ne sos moo uh-huh. tax uh-huh. bu taxawee ci wàllu modernisation bi ba tey moo xam internant wala ñi nga xam ne dañuy dem fekk nit ki uh, këram jàngal ko alxuraan apprentissage bi nan la war a war a mën a demee waaw d'abord jàngale mi maanaam jàngale mi ni mu war a demee mooy kiy jàngale. Hmm. kiy jàngale li mu war jëkk def mooy mu am si féexee ba ki muy jàngal mu xam li muy jàng. Hmm. parce que bari na ñoo xam ne dañuy si kër yi di jàngale cours rek. Hmm. waaye xale dañuy mokkal mais du ñu mën liir. wala mag mi day mokkal du man liir. d'accord njàngum gumba te njàngum gumba nag amul njëriñ. léegi li am solo mooy féexee ba yow miy jàngale temps bi lu mu néew néew ki ngay jàngal. mu mën teg baaraamam. ci li muy wax. Mm-hmm. loolu moo am solo. mooy firndeel alxuraanul karim kàllaamullah muy wax yàlla comme ni ñu ko waxee rek wax de kàddu waxu yàlla la. Mm-hmm. du waxi nit. Mm-hmm. ba tax na lii imam wax léegi wàllu pédagogie bi tam daf ci am solo. parce que pédagogie bi mooy. parce que xam nga arab. dafa wuute ak français. bokkul. arab dafa di langue boo xam ni booy jàngal nit ki. base bi. mooy nga jàngal ko alphabet bi mu mën ijji. mën iji même français sax boo xoolee boo xamul alphabet bi mënu mënu takkale baat yi doo doo dem doo mën a mm. lire mm. donc alxuraan noonu la mel moo tax nuy wax jàngu gumba jàngu gumba mooy ki nga xam ne tey mokkal na saar yu bëri mais tey boo ko joxoon téere bi tey mu xool mm. du mën liiral boppam tout à li am solo mooy nga jàngal nit ki ijji ba nga xam ne moom tey bu dilee téere toog moom dina mën ijji boole baat yi mën a jàng euh, euh, euh, imaam mënuñu fi toog te duñu waxtaanee doomu réew yi Sénégal yi nga xam ne dañuy génn ca biti réew di indi ay raaya ci réew mi mu mel ni taxawaayu Sénégal jàll ci njàngaleem alxuraan tam am na solo. waaw loolu lu am solo tey mën nañu wax tey place Sénégal tey. Mhm. ci alxuraan ci adduna bi. parce que li ko waral tey mooy. Mhm. mooy tey internat yi. parce que mhm. boo xoolee xale yu bëri. ci internat yi la ñu génne. parce que tey mbir mii dañu dañu nekk ci jamono boo xam ne tey. Euh, euh, euh, capitalisme te il faut nga fay sonn sa njaboot pour ëllëg mu mën a nga mën séntu ci moom dara. fekkee da jël sa doom tey sànni ci daara ja yow doo fa jaar doo ko xool si bi condition ya mu nekk mm-hmm. kooku tey nga bëgg sa doom ëllëg xëy suba dem jël concours international day jafe mm-hmm. te yow mi nga xam ne nag tey fab sa doom yóbbu ko ci internat bi tey di ci sonn di ci fay di ci mm-hmm. frais vraiment kooku tey boo xoolee internat yi tey xale yu bëri ci loolu génne tey d'accord ci yenn daara yi nga xam ne tey mën leen lim ci Sénégal daara Aïcha Oumoul Mouminine bi bu Grand Yoff daara euh, yeneen ak yeneen tey ji euh, euh, nu mu tëddi daarul istiqaama ak yeneen yeneen ak hmm. bu baax baax mu doonoon imam Mokhtar Ndiaye moom mooy chargé de communication bu association nationale des imams et du Sénégal ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Cheikh noonu lay sant bu baax jërëjëf di rafetlu jataay bi ndax jataayu alquran rawat na nag ci bis bi ñu ko def bisu hmm. laylatul qadr bi insha allah hmm. di ziar di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal ci àdduna bi yàlla defal na sutura li ñu jàmm yàlla ci koor gi yàlla nangu amiin yaa rabbi jéggal na sunu ay rëcc rëcc incha allah amiin amiin yaa rabbi imam euh, Moustapha Ngom itam dañu koy jaajëfal bu baax a baax muy imam ratib euh, bu Mariste 1 waaw di la jëfal Cheikh Diop di rafetlu jotaay bi imam Mokhtar mm. waaye di jaajëfal groupe Futurs Médias mm. di ñaan télé bi yàlla na koy gën yàlla gën a yokk mu gën a jëm kanam mm. yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci àdduna bi yàlla nañu yàlla dajale tey guddig leetul xadar mm. luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko luñ ci jàmm yàlla yàlla nangul ñu ko ñu fekk waat ko at yu bare lool bi mm. dark sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñëpp di ziyaari ñëpp jërëjëf ñu di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñaar ñi nga xam ne nag ñoom la ñu loon li nga xam ne moom moo di jotaay wi doon waxtaanee li nga xam ne moom moo di njàngaleem alxuraanul karim fii ci réew bu Sénégal mbokk yi agsi nañu ci ñaareelu pàccub xibaar yi maa ngi leen ko doon junju daañu amal aw dossier jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàlluk defaruk dàll xam ngeen ne korité bi egsi na dem nañu ca diwaan bu Médina rawatina rue 11 xam ngeen ne foofee ña fay defar dàll bari na waaye itam waxtaanee nañu li nga xam ne moom moo di seen i ay jafe jafe-jafe ci la jamono gis client ah, di rek loo xamante ni itam jafe-jafe la bu ñuy jànkoonteel ñoom ci seen biir Maimouna Ndiaye ak Modou Diop ñoo demoon foofe siqoon ak ñoom waxtaan ñu seetaan. ay ndaw yu ñu fekk nag seen atelier ñuy def lu ñuy woowee finition liggéey bu mujj laata ñuy joxe commande dàll yi nga xam ni korité bi moo tax mu jóg ñu ngi fii ci rue 11 bu Médina waaw commande yi moom euh, événement bi ren wax dëgg yàlla maam daal par rapport ak daaw daal waaw mais nag euh, am na yoo xam moom kii lay doon commande dañ lay commandé nga liggéey après bu paree borom ñu jël ko jox la sa. ci seen liggéey ay cordonnier lañu naam wante itam ay styliste la xewoon démb dañ ci sukkandiku waaye itam modèle yu yees yi dañ ciy xool xool lan lañu mën a soppeet ñi ñu def ko. maam au lieu moom dañoo jàppalewul rek mais bu ñu jàppale wax dëgg yàlla maanaam ni ñu liggéey moom macha allah dëgër na rafet na. il y a on a des clients maliens des clients guinéens des même de clients sénégalais. mais non de la plupart de nos clients sont des Guinéens maliens. ci biir matière première yi itam léeg-léeg mu tënk seenum liggéey. que yi ni mu doon ñëwee léegi dafa cher tellement xam nga comme nga daal bi ay temps danañ ko jaay mille cinq cent ba deux mille mais ça dépend quoi léegi affaire yi moo cher quoi marchandise bi ñuy liggéey dàll yi moo cher. ñun dañ daan jënd cerax yi ay mille huit cent waaye léegi dem na ba ci deux mille nga koy jëndee. waaw bukkaa jaayaat dafa xaw a métti nag. Eh, waaye dara. ñu ngi ciy góorgóorlu taloo yi tamit noonu la. taloo yi tamit noonu la. talon yi ah, daan nañ ko génn ay mille cinq cent di ko jaay waaye léegi dem na ba trois mille nga koy jënd war koo jaay jaayaat fay paas. Ah, chaque année day yokku tey si tey kii bu doon jar par exemple deux cinq cent wala deux mille léegi ñoo ngi koy jaayee toile bi croco bu doon jar ay deux mille yooyu noonu léegi ñoo ngi koy jaay trois mille le mètre donc moo lay wax ni affaire bi yokku na de tout de même que les strass là strass yi ñoo ngi doon jar ay sept cent. léegi huit cent wala parfois sax am na assurance yu jar mille francs même chaussures yi tamit ci wàllum chaussures yi tamit chaussures am na chaussures auparavant noo ngi doon jaayee ay mille cinq cent en léegi dafa yokk ba deux mille francs parce que yokkute ko boobu soo ko xoolee euh, diggante exportation euh, importation bu ñuy def bagage yi la ngay fay ak yooyu noonu ak tamit waa Chine tamit xam naa vie vi que ñun dañu intéressé wu si lool marché chinois bi mu am lu bari lu mu laal ci seen liggéey. wàllum importé bi dugg ci réew mi loolu moom laal nañu bu baax a baax waaw loolu moom bu mënoon a fexe ba mu wàññeeku daanu arrangé moom. parce que lu si bëri ñu ngi ñu bëri ñuy liggéey bu ñu xoolee dañ koy gis si marché bi day. leneen loo xam ni daf leen di sooxe léeg mooy ñàkkum financement bi. dafa léegi mooy waaw defal ñu ay financement pour ñu mën a liggéey affaire yi jàll. ci njàppandalu nguur gi nee nañu bis buñ ci jotee dinañ am yaakaar ni seen liggéey dina gën a ñoŋ ñu mën a ubbeeku sax ba ci bitim réew Maimouna Ndiaye korité bi ku sol daal ku ne dina sol li nga xam ne moom moo di yére tax na itam suñu ay ndaw dem nañu doxantu gis yenn ci ay tailleur yoo xamante ni itam eh, ñu ngi yëngu ci wàll bu baax baax waaye xam ngeen ne campagne wi ñu weesu eh, daal na indi ay rëq-rëq ci li nga xam ne moom moo di eh, seen ak liggéey na itam ci ay modèles yoo xamante ni nag sénégalais yi daal nañ koy taamu lu ci mel ni costume africain yi ndax itam ki nga xam ne moom moo di premier ministre fii ci réew bu Sénégal moom Ousmane Sonko ak itam président Bassirou Diomaye fay li ñu ko sol lool tax na itam ndaw yu euh, bëri bëgg modèle yooyee Habib Faye euh, dem na gis yenn ci ay euh, tailleur ñu seen reportage. ci barabu liggéeyukaayam lañu ko fekk Sonia lay wuyoo mi ngi lijjanti détail yu mujj yi ci feetu korite gi moom tailleur la day ñaw mooy liggéeyam bés bu yàlla sàkk dox ci mbégteeg client yi ca lay nekk ak ñaw yi. nga jël sa ay produits voyager ñëw coono bi ngay daj et tout xam nga ñëw donc yow risque ngay demee daal ndaxte na ngay jël sa xaalis investir na xaaral ma dem su demee Sénégal dina peut dina dox comprendre donc loolu risque la. du moom dong mooy ko ci liggéey ndaw ñi ci la ñu bokk ñoom it ay tailleur lañ bu njëkkoon liggéey bi bët bañ ko doon xoolee wute nag lool tey jii nga xamante nit ak xarala yu yees yi def cee dugg. yu yoo xam ne amul fenn yu mucc ayib. ba pare li ci gënoon a neex mooy boobu amutoon renfort boobu jamono boobu bee coton lañ doon utiliser ak ay buée soutien ba pare même ñaw yooyu sax ñoo gënoon moyen mooy frais que léegi. tailleur yu bees yi dañoo mën a ñaw parce que dëgg yàlla lépp li nga xamante ne ni dañ ko doon def luy mel ni ay prêt à porter di ko ñaw di ko jëlee ci ay dëkk di ko indi léegi tailleur yi dañ koy ñaw ba mu dàq bi nga xamante ne ni moom lañ daan jëlee ci dëkk léegi di ko indi fii. dañuy Euh, da ngay contacter numéro bi rek daal di valider. bokk na ci lii di numérique bi ak ay ordinateur yu ñu indi modèle yu bees ci seen design mu bëggal leen lool. day yombal liggéey bi parce que loo xamante ni euh, loxo moo ko daan def euh, lu mat ñetti nit di ci jàpp léegi mën nga ko def ci benn. trente minutes wala une heure de temps. nouvelle technologie la ay machines yu bees yoo xam ne c'est à programmer mooy machine ordinateur yi dangay ngay programmer génne sa motif dessiné ko après nga dugal ko ci machine bi comme ça après machine bi mooy programmer ñëwal la ko facilement doo fi nekk di sonn. waaye du ñëpp ñoo ci mën a jotee ndax dafa bëri gàllankoor. ordinateur yi moom c'est bien beau aussi baax na fi mee nag mu ñuy rey benn côté aussi tamit ñu ñu profité waale rafet na trop mais parce que dañ la koy jaay 7 euh, millions par exemple nga jënd ko ba pare di ci di ci toog di ci bi la koy jaay dugal ko ci dëkk bi. di ci liggéey liggéey bu mel ni bi ngay liggéey waaw ah, non day jaay machine bi design bi da jaay ak liñ ciy def ñun moom da koy def en même temps xam bu fekkoon daf ñuy jox machine bi jaay ñu machine bi ñu koy utiliser ñun di si ñaw pour suñuy ñaw bopp amul problème àdduna moom lépp loo gis bu ci concurrence amul sax liggéey ba mun naa ne baaxul wala lu dem àdduna da ngay gis sa morom di def yow da ngay bëgg def sa morom li muy def da ngay a def lu ko ëpp atum ren bi nag tendance bi lii la bolokaar la ak brode boo xoolee xale yi léegi yu gën a oyof yi la ñuy gën di sol korité bi xale yi ñoo ko moom mais mag ñi aussi dañuy bëgg tamit def bu sew comme par exemple tunique yi nii boo xoolee boo ko solee da ngay relax nekk à l'aise di nga mën a sol loo xamante ni daal du la encombré da ngay nekk à l'aise comme ni ma def nii rek suma tunique nii def relax toog garaam boobu gis nga ko nii ak euh, fila fil yi ñoo nekk nii teerut te dañ koy ñëw ñëw bu rafet xam nga consommation locale bi jamono ji doon na lu ñu jël rawatina ci autorité yi di ci def seen kéem kàttan ci bés yu ñu génn. consommé local bi ñu daal koy exposé ñu ngi ciy sant nag bu baax a baax suñu président bu bees bi Bassirou Diomaye fay lépp lu ñuy sol ñu ngi koy liggéey ci réew mi kon lu mel noonu su amee dañuy dañ leen di jaajëfal ñoom célébrité yi. genre style boo xam ne c'est c'est très correct foo mën di dem ci àdduna partout mën nga ko sol. mën na dem julli ji mën na dem palais mën na dem seeti kilifa boo bëgg seeti moo tax tamit président bi moom eh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy si félicité tey ndax gis nañ tey mu sol costume africain bu rafet ñu koy woowee Karajo 3 pièces. faaw ñu gën leen encouragé. may in Sénégal parce que boo xoolee ñun suñu yi ñuy defar comme par exemple jàllaabe yi nga xamante ni Dubaï lay jóge léegi fii da ngay xool xale yi euh, tailleur yu ndaw dañ koy ñaw macha allah mën ko di ko defee nu doy noo xamante ni. da gis ni ñaw yi léegi am na finition kon donc ñun soxlaatul ñuy jéggaani. booy xool suñu temps bi yëpp suñu temps bi campagne bi moo ko jël kon booy xool mode collecteur bi presque quinze jours rek lañ am pour pour def suñu tendance parité mais malgré tout ñu ci def ay tendance yu am solo ay costume africain cent pour cent africain ay costume yu rafet l'élégance et ñoom tailleur yi di woo gouvernement bu bees bi mu am ay mécanisme yu mu teg ngir produit lu koy ñu koy jëfandikoo. mooy fexe jàppale jeunes talents yi. mu ñi gis leen xàmmee leen li ñuy liggéey ñu wane ko loolu moo ëpp solo ci loo mënti gis. ñun suñu dëkk bi li li ko xaw a kii tuuti consommer local dafa xaw a des parce que da ngay gis lu mel ni Nigéria seen président yeeg seen ministre seen lépp seen yëfu dëkk moom lañuy sol te ñun ñooñu ñun li ñuy def ñoom dàquñu ñu gis ko ñoom dañuy ñëw di jël fii sax di yóbbu. li des ci korité bi bëriwul marché bi fees dell ak ay tissu yuy xew tailleur yi di ci rey seen bopp it di fanaanoo ñëw. ngir mën a bégal client bi li ci ëllëmub xel atum ren gi moo di campagne présidentielle bi nga xamante nit wàññi na bu baax seen liggéey client yi teguñu leen gët jaajëfal ko bu baax a baax moom euh, abi fay jaajëfal itam tailleur yooyu nga xam ne nag ñu ngi sëgg ci euh, machine yi jaajëfal mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média yi nga xam ne nag ñu ngi doon teewlu bile jotaay mbokk yi waxtu yëkkati ko euh, jot na dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu TFM 18h45 lay doon ak itam 20h jotaay man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg yem ak dibeer benn waxtu dinaa fi teew jukki leen xibaar ci kàllaamay kocc lu mooy loolee des leen di wéy ak programme bu télévision Futur Média jaa jëf bokk yi ñu yendu jàmm